yow booy booy booy booy booy fii la dëkk. waaw mooy sama doom patron bi. waaw booy booy bi dafa leer waaye booy booy bi lom fii bu waaw waaw booy booy booy. wakay wakay booy booy leew day de. loolu la def booy wala maa wax gàtt aw la. ah lu si nekk. waaye booy mali mi sëpp booy booy bi xaw xaw ma booy seetali ma. man kat ñaar ko damaa xamul lan moo si nekk nag saa waay. waaw gàtt aw la man sama aw la daa gàtt. xaw ma si dara. eh sax ak mu war ko si si sëñ Maala Ñas sama aw la bii gàttul. booy booy ma waa ay ay ay gerte aw la. loo ko def loo ko def ma ko dara waaye day jaal sama day wax samay wax moom ma ñàkk forme leen ma gerte mu ne ma la waaye la booy bi gerte aw la. oui moo la ko. Eh, sama àll aw la bii gàttul waaw wala wax na booy leew nañ de. ya tooñoo de yaa ngi naa si jukka de. kama kama tooñ booy moom moom waay tooñ ay booy. waaw mën a tooñ. sax yow yow li ma jaaxal yow yow ah. fii sa sa ka kama fii da nga am jëkkër wala da nga am bajjen wala da nga fay am fallu wala ngay ñëw fii di fóot kër jàmbur. ah dama liggéey daal sama doole. lay li yow yow lay liggéey foog ngay liggéey. foot de laay liggéey maa ma dem ma dem yow ma dem ak nga amee personnalité kër ga ah ni foog ngay liggéey. mais si nekk daal sa doole la de. waaw sa fee eh, dëkk fii ma lekk. ñaanku yàgg xam ne fii amut benn mbokk damay foot ni ma sol nga xam ne boo ko sax damay. da ngay foot ñu lay fay. duñ ma fay lan la bëgg. yow waxoon naa la ñoo fi ñuy fóot ñàng. ma waaw waaw ma kay ma kay bañu ma waaw waaye nag waaye nag waaye nag yow fóot fóot fóot. fóot yow bu ñëwee man mën na yowee man garaaw mën naa fóot yow lay wee. ah kaa am na nag. ah lii moom kaa la moom lii moom baax ba dem rek ma ne yu baax. ma toog toog a ba añ. eh gaa garaawul yow da ko fu ma añ. yow da ngay fóot ñu ne fay kay boo fi lekkee daal da ngay fay de. te yow ngay sa fóot moom rek. yaa ngi noonu rek waaw kon baax dafa ngoon. waaw waaw booy yi. waaye awoon na booy yi dañ mooy seen bopp. waaw dinaa wax ak moom ñëw ñeent jàll lekk rek la gëm. Ah, heure añ na ci bu lu mu dox dox dox dana jaar ci kër gi. dana añ si yow kay nëppil rek li ma lay doyee moom dana mat mat nga ko sëkk kay. xam nga temps bi may ko kay amoo temps waaye mu ngi ñëw ah nit du yàkkam ci waaye yow itam ah nangu doomu ragalu la a lii daal kaay. kaay yow daal xaar ko ba tey kaay. toogal bi toogal ah, ah. bi. waaw waaw bu waxee toogal rek yow kii kan la. léegi noppi rek. ay ñu ko ay kañ nga am ka nga xamante ne dina ma baax baax baax. kañ nga am ganu mini jeex. déet xool ko xoolal kii xool ko kaw ba suuf nag bu bàyyi dara xoolal yëpp wii waaw mën na sëkk dem. mat na sëkk kii mën na sëkk. mat na sëkk. waaw man na lu lay itam. yow yow yàlla defee su la dara nit ku ma sëkk a ngi nii. militaire. kafulaar moo la tey wuy ma moom man man ku ma sëkk la. waaw waaye yow ku ñàkk jom la ci sa ñàkk jom boobu. Ah. moo tax ma indi ko fi da nga liggéey wala doo liggéey. ah liggéey maa ko rey. kan ko ma liggéey. yow eh mu xëyu ma de. loolu day dem da nga liggéey wala doo liggéey. eh eh liggéey ma fët. ah bàyyi eh, eh, eh, bàyyi ko bàyyi ko. Ah. da nga liggéey wala doo liggéey. ah da nga liggéey wala doo liggéey. wax wax na toog pare toogal. xam nga la a kër jigéen. waaye yow sa biir wax ah dégg nga wax kii mu toog sama kaw. na toog ci sa kaw nga dee mbaa nga liggéey kese. waaw waaw waaw naa naa liggéey nii ah. na nga liggéey. sama liggéey lu si yoon kii. eh man damaa xam ne yab nga ma. Ah. su ma nee liggéey ci kër gi da ngay bañ. kii moom ci kër gi la fas yéene nekk demul de fii la dëkk néegam gi fële moom néeg pen dañoo laal. dama koo jël fayuma weer dafay ne liggéey mbaa de huit heures biir nga génn kër soo ko defut moo lay yeeree kaw kama mooy lay moom moom mii mu ngi nii gis nga ko amut caaxaan ay bët nag amut lépp doo yow da nga ragaloo waaw fët fët léegi jërëjëf jàllale ca yow ca jërëjëf na sa xol waaye nii yow yow yow nii wér nga wér wér yow nii kii xam nga wér kii fii sax xoolal lëkkaaru dafam bi nga xam ne dafay xoolal nii yow kii soo ko waxee mu toog sama kaw toog sama kaw lay mën a. foo fekk ku ñàkk ñoom day bëri wax foo fekk ku ñàkk ñoom day bëri wax yaa gën a bëri wax waaye yow force nga liggéey. force rek pour naa yow nii sa sa leew bi nga ne. nii nii sa leew bi nga ne mu fa fekk ja wala maa la gën a leew ku fa kan ah ah ah. ah, ah. kon nay gaaw rek fët moo ba fët rek. waaw oui oui man dinaa gën kër gi wax ko mu dem. ne suñu baañ bi gaaw si la ko jëlee indi ko fii de waa ndax ñëpp ni lañ mel amuñu caaxaan. waaw sama bu mag sax. mais nee yow yow soxla nga rek yow yow ku yow kii baax. kii kii mag jar naa ba cim réew mag rek jar ba cim waaw solution la ñuy lijjanti fii moom ko ne bu fi réew bañ a liggéey nga wutal ko dëx a mën a fàcc kaw mu fàcc rek wax ji jeex ay eh, Abdou Fall moom bëri na ci réew. léegi day biir di ragal